sant bu baax di gërëm euh, monsieur ministre Moustapha Ba ndax euh, bu fekkee ñun euh, dama waxoon président de la République ne ko Diourbel région bi na amul hôtel waxtaan ceeg moom mu jàpp leen ci bool ñoom Malick Gueye presque deux ans presque affaire bi eggul vraiment ma waxtaan ci ak moom mu am ci yéen def ci pas-pas ba tey bu ma liiree sax ñu yaakaar ni dina pare année bi gannaaw yàlla bu amee moom mi defee jàpp te mën nag damay wax nag nit bu la defee lu baax nga wax wax ko fa nga ko war a wax dara newul te mën na ñoo sonal traîner ñu mais ba mu ko wax aussitôt mu def leen ci war def yëpp ba je pense ne que li yàlla mën na def fii ba fin war nañ ko mën a tijji kon yooyu kàddu dinaa ko jël ministre monsieur le ministre sant la gërëm la ci turu waa Njaaram yëpp ndax ñoo ma jiital jox ma seen kàddu kon soo ma jàpp ci meloon sagal nga ma kon sagal nga waa Diourbel yàlla na la yàlla taxaw sagal kon loolu waroon naa la ko wax beneen bi aussi mooy ministre euh, monsieur le ministre man damaa jàpp ni ñun Sénégal war nañu war a mën a xalaat bu baax ci tourisme religieux bi ak tourisme intérieur bi parce que boo xoolee tey jii euh, Diourbel ak Touba ak euh, Tivaouane partout ak surtout Touba boo xoolee mouridisme Sénégal ci la am sëñ Touba moo ko créé te loolu war nañ ko mën a jaay partout ni ñu demee Gabon ni ñu demee euh, Côte d'Ivoire partout mais war nañ mën a fexe ba au moins nit ñi ñëw diñu fekk ci fii ci Sénégal te loolu lan la mën nekk ndax boo xoolee fu mel ni Diourbel def na fa quinze ans boo xoolee photo yi nga xam moom nañu wane mooy jumaa ji mu fa taxawal pose première pierre bi Diourbel la te boobu jumaa la taxawal taxawlu ko feneen def fa 15 ans résidence surveillée bi ma nga fa donc kër gu mag yow xam nga li may wax fa nga dëkk kër euh, Cheikh gis nga la fa nekk mais loolu bu ñu ko valoriser woon réglé ko lépp organiser waat ko je pense que du màggal Touba rek mais chaque jour war nañ di visite Diourbel même jumaa ji chaque ajjuma sax ni ñu war nañ pèlerinage di fa julle ji ngir lam fa def mais yooyu yëpp ñun xalaat nañ ko moo tax otel bi ñu sonn ci pour mu pare parce que loolu bu ñu ko créé tamit te amuñu fu ñu dugal nit ñi dañu am problème moo tax tourisme religieux mun ñu ko doxal tant que hôtel boobu pare yàlla na ko yàlla matali ak jàmm boo xoolee tamit boo xoolee tamit boo xoolee ceytu ku Cheikh Anta tëdd parce que chaque année nit ñi day ñëw à travers le monde di ko visiter yooyu yëpp dafa am solo ba nga xam ni vraiment dama lay encourager ci ñu ànd liggéey bi nga bool say service parce que nee nga effectivement ñu mën nañ ko gérer waaye kenn ku nekk sa xam-xam yéen fala sam daf commencé ñun xamuñ ci dara waaye ñu ngi lay ñaan bu ñu amee audience nga boole say service ndax am na créé naa benn office tourisme ñu ànd ak ñun ñu liggéey ci tabax ko balaa hôtel bay pare ñu mën ko mettre en nga xam ne tourisme intérieur bi dafay même tourisme culturel aussi mandat pour yi nga armée yi parce que mais ñëw pour je pense ne ku du am problème déjà foofu en tout cas vraiment mu le ministre du tourisme nga jàppale ndax Jurbel tey jii amul dara usine ba presque dee na te hôtel bi tey jii moom moo ñu war a mën a dimbali ba dëkk bi dundaat parce que boo xoolee Mbuur géej gi moo tax mu dox waaye ñun Sëriñ Tuubaa mooy géej te moo raw géej te ñun loolu la ñu gëm te bés bi ñu ko defee ni ñu ko war a defee rek àdduna nañu fekk si ba lan lu ma ñun ñun murit yi liggéeyal ñu ko ñun waa Jurbel loolee nañ ko jëriñu ci nu mu gën a gaawee te yàlla na ko suñu borom defal tawfeex en tout cas ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax la eh, defal tawfeex li aussi nga xalaat bu baax ak ñun ñu waxtaan ci yàlla defal ñu ci sëñ Tuubaa moo am fay ku ragal bor ku mën fay la te moo la ñuy fay ñun ñëpp yàlla na yàlla jàppale defal ñu tawfeex jërëjëf. merci beaucoup chers collègues Adama Boukounta Thior à la parole.